foo ko nekkul un peu ah. non c'est xam nga xam dañ ne mbër. boo guddul réyoo doo mbër. da ngay doon bërikat. Mm. ñu gis ne Tidiane Faye taay ba guddul. mënta bokk ci les très grands champions. Mm. mais techniquement amul benn champion bu ne fii bu ko gën a fort techniquement. ndax façon jël li muy daan rek. Mm. ñi koy daan ci làmb ñu néew lañu. donc barki dem boo Ndiaye la dugg fi arène. national. def def retour am. daan mhm. avec la manière. sans fatiguer. adversaire bi démarré mu croisé ko fiile ko mu romb ko mu daan ko. mu daan jañax ko sonn sonn gi sax. Mhm. donc dafay wane ne moom loolu daf ko doon def ubbeeku. Mhm. mais ñi mu soxla bëreeg ñooñu bëreel du ñooñu donc Tidiane Faye ci làmb ji nañ ko ubbi chance mu terminer sa carrière won ne. mën na toll fenn ki làmb mm. fekk xale yi toll ci digg jamono mm. mu jël leen tëral leen mm-hmm. donc nos encouragements à Tidiane dama ci joxe benn anecdote waaw Tidiane Faye dafa bëree tegale trois défaites mm-hmm. ou quatre défaites oh. ca commencement ba mm-hmm. Tidiane Faye quatrième défaite bi bi mu daanoo dafa jóg songu ma man mm. ñu taxaw sama kanam ma ne ma li lan la pour lan may daan pour lan may mel ni kuy xulóog man xulóogul man mais je l'ai ah. dem toog lu yàgg adduna bi yëpp bëriwul. bi mu ñëwee ay sept victoire la tegle. kalaaf hmm. bi ngeen di wax maak moo bokkoon ak Zagwa. Zagwa bëri ngeen yéen ñaar. Hmm. ak Ousmane Touba daan na la hmm. waaw. loolu ñëw ko kalaaf man dama. ak Ousmane Touba moo mais c'est un grand champion. ma nga loolu am na solo ba tey ci seen rubrique. champion la et puis ñu koy ñu kan la kii kan kan la. xaftaan la sol de. garaajo. dama am ñaari naanam nag bëgg naa ngeen. ci xale nga. kàlla. photo bi xàmmee naa ko de. kii kàlla. yàlla na ko yàlla yërëm te xaare ko aljana firdawsi. kàlla. booy bambara yàlla yërëm ko papa booy bambara. booy bambara wa. réponse juste pour question. xaftaan bi xàmmee naa ko xool fee nga xool fee moo bës. wuli yow mi ngi waxat ah, léegi man léegi ah, ñoom dañoo bëgg bu ma gënee. kon léegi bàyyi ma noppi. waaw loolu la ma waxee ñu ne dama koy xool. yow da ngay def loolu bés. xaftaan bi xamee naa ba ne. dix points. yàlla na ko yàlla yëngu kii naa ne ko yàlla na ko yàlla na ko yàlla na tàkk na yaa ko xam lii dafa bëri kooku la benn bon wuli comprendre wuli nga baal ma. waaw tàkk vertul ko ban couleur moo nekk fii. je suis très comprendre. non non non non de de de de. vert vert tant que vertul soo bësee du ñëw. Eh, maanaam su kenn bësee. mais de France xool ma je suis comprendre. yii ñan ñoo ko yore. ah yéen a bëri sa yéen sa bopp. ñoo créé fa. ñoom nag nga tuddee mille neuf ñoo bougé waaw léegi bu Alaaji Mbay gadee ñu noppi man su ma gadee ñu wax. wax dëgg yàlla teel nañu wax dëgg moo tax ah taalal. bàyyi ay Fatima eh ni mooy tëj affaire eh, yi. xaaral xaaral parce que kii jàll léegi war na doon wax. Alaaji eh, parce que kii bokk na ci ñi tax Grand Dakar usine ñaari tali benn tali ñu bëgg laaw moo yor di muy bi muy dem na ba nekk champion drapeau yu ñu doon teg yëpp moo ko gagné. Mm-hmm. mu doon champion bu mag dugg faas rek toj faas. Mm-hmm. bëri faak ñu bëri dugg Pikine noonu doon champion ah benn combat bu metti la nit ñi di fàttali moom ak Robert Diouf la woon. waaw boobu vraiment Robert daf ko wonoon li maa la mën mais kii athlète la woon da doon def gymnastique. Mm-hmm. ah ba pare nekkoon champion d' nekkoon na entraîneur. Hmm. musu nekk sa entraîneur. si nekk na entraîneur national. waaye entraîneur national lutte olympique. oui waaw et lutte gréco-romaine. exactement ñun tam moo ñu tàggat aussi ci mbapat. Hmm. ndax Mbiita Sadio. Georges tous ces grands champions. ah, euh, ah Tidiane Assane Assane Camara. Hmm. Moustapha Gueye ñëpp ci mbappatu booy bambara la dañu jàngi bëri daanaka. Mansour Diop Mansour Diop bari nañu. mas naa seetaan benn combat yéen déglu leen. c'était euh, il faisait deux heures et demie du matin Mansour Diop bëri ak Papa Gueye. Mbaye Gueye moo arbitré boobu combat. deux heures et demie du matin jot na mbappat mi kenn nanguwul a ñibbi dañ ni woon na diggu buntu buntu Baye Mbaare. champion la. moom tam yàlla na ko yàlla xare ajjana waaw suñu la woon nag te et puis na sama consultant ci 2STV papa alaaji papa Boy Bambara laa ko daan sama xarit papa duubal lees ak papa Mbaye a ak Mor Fadam Mor Fadam ñëpp Aliou Seye ñoom ñëpp yàlla na leen yàlla xare yëpp gis nga boo xoolee gis nga leen sorewunu booy bambara Double Less mbay mi. ñaar ay xarit la ñu ko xool kii maanaam kii nu mu tuddati. Balla Gaye Balla Père Balla Gaye. ak Père Aliou Seye wéeral wéeral Père Aliou yàlla na ko yàlla wéer ak jàmm. Père Aliou suñu papa suñu xarit yàlla na ko yàlla may dund fan. bu baax ayca bisimilah. la dernière question Mourou pour seen champion. looy def si. wala na ko ko def gis nga. Mourou Mbaye Mourou Mbaye Mourou Mbaye Mourou Mbaye Mourou Mbaye Mourou Mbaye

xalaat ngir bëri. waaw loolu waaw loolu ma lii mooy weer ñooñu ay nit sax. man gisuma ay man. man gisuma ay man. waaw man yàlla àtte na ma ak ñoom. yàlla àtte na ma ak ñoom. yow image ñëwagul nga ne Gris Bordeaux. waaw non c'est mais kan kan moo ko. non yaa Gris Bordeaux. man maa non yaa Gris Bordeaux. Karaajo bu Samba lépp perpégal la perpégal génneel nu kii kan la bii. wallaay mu nekkee Gris Bordeaux ngeen xam ne lépp dëgg. mooma mooma. Gris Bordeaux Gris Bordeaux. mooma Gris Bordeaux. jumbax bi laa xam. waaw Gris Bordeaux mooma mooma. loo xam ne moom déedéet wulli moo koy gaye. ah wulli bësul. wulli bësul. daa takku bësul daa takku. daa takku daa takku. père eh, eh, du ko gaye de. maa gaye waaw lan moo tax waa Géejawaay. waa Géejawaay waa Géejawaay. naa la. waaw d'accord waaye waaye mbaa géej wax da nga leen di war a eh, wane. ñu ngi nii na dëgg la wane na Balla Gaye ah, ah, mii borom bi ma xam ci ah, dëgg la waaw dëgg la dëgg la. waaye dëgg la mais juma ko géej borom bi xam nga. xam naa juma ko juma ko. macha na solo. mbokk yi am solo euh, Fatima Sila tey suñu rubrique. Euh, seen euh, champion kii kan la ci Gris Bordeaux lay jeex. HBK le troisième tigre de Fass. Mm. waaw le troisième tigre de Fass mooy Gris Bordeaux. Uh-huh. mooy tu Moustapha Gueye. Uh-huh. ah yàlla ko Balla Gaye daal ci bàcc si daan euh, waa déglu leen Antoine Bakhoum ah daan Eumeu Sène mm-hmm. ah, daan Lac de Guiers numéro un oh. di champion daan Baye Mandione daan daan nag Mohamed Ndao Tyson stade Demba Diop moom te tey jii mu am combat mu war a bëre la lion de Guédiawaye ah, ah tigre ak lion war a daje loolu mi ngi am le 7 août mm-hmm. arène ah, nationale falan ko war a bëree bu neexee yàlla Gaston Mbengue moo ko taxawal mm-hmm. Balla Gaye bu paree ci foofu Eumeu Sène a koy xaar Boy Niang koy xaar kon mbokk yi loolu moo nekk seen champion ki gagné mooy wulli këcco non Ketchup bi ah, bi dinaa ko wax moom. waaw bi yaa ko gagné. am nga eh, eh, cinq non non moom nga cinq di doom dara. waaw jógal fële naa taxaw leen ne non non daf leen ne. dama eh, ne taxawal ne. non bu ma góob xool. alors door ma. plateau bi ngeen. oh. mbokk yi seetaan la 2STV ba tey. HBK waaw kon mbokk yi ah ngeen baal ñu. Mm. eh moom la ngeen baal ñu ngeen baal ñu. ngeen baal ñu. Ah, moom la la mbokk mbokk téléspectateurs yi ngeen baal ñu àq. Mm. ñu ngi leen di baalu àq. ñu ngi delluwaat di leen baalu àq. ndaxte ñun bu ñu invité dañoo yaakaar ne ay nit la ñu invité. vraiment mais vraiment lii c'est honte. Lirou Diane ak Wouly. non moom moo fekk si. et Wouly noppi bu ñuy invité mbokk téléspectateurs yi dañu dañuy foog. mais léegi li ñuy def tax bu ñuy dugg ci beneen kii ñu seetaan tous dellu ci waat ci émission l'Oeil du Tigre. andi fi.